ah ma ne événement yaa ngi ñëw ay ca dewal gaaw ca Pikine Master Seng ca Ndiaye Jasner borom tissu yu am maanaa yi borom tissu yu am qualité yi ah Ndiaye Jasner ñu ngi ci vente de tissu en gros comme en détail ma ne soo bëggee cuub bu am qualité wala brodé Jasner Bageris wala tissu pour mariage ah numéro baa ngoog ci 76 921 70 56 wala boog 77 485 28 37 ah. kon ko bëgg tissu bu baax bu am mana bu am qualité dawal gaaw ca Pikine marché Zinc et ci Ndiaye Jasner marchandise yaa rafet lool te taaru macha allah kon ay ca bok yàq yaa ngoog. ay ca sama gaay bi fii ci Ndindy Fall TV bu sama su bo jëm nek kam tere gal gi do jola bu sawal wa waaw ca do jola Joola bu sama su bo jëm nek kam tere gal santo mu sawal ngok kon Ngalla Sène Mbor a ngoog ngay daw ko sow kay mais Abou Yaya boo bettee hee waa Sowal. Desi Maodo loo ko waa Demba Foundiougne John Boussara si boo jëm nga njëkkam tere gal gi Jalla Cang Cang production.